téléspectateurs yi ñoo am mbégte nu ñu koy defee euh, samedi bu nekk ndégtal seen émission samedi mag bi nag mooy euh, émission samedi mag bu mujj ci année bi ñu gis ne euh, nekk na une émission boo xam ne ñuy rafetlu téléspectateurs yi seen taxawaay ci émission samedi mag saa su ne ñu am ay recul ak ay retour yu bëree bari yoo xam ne ñu ngi koy jox ci ay xibaar ci émission samedi mag ni ñu koy defee nag émission samedi mag dina am gan goo xam ne dina fi ñëw teew waxtaan ak ñun xam ne actualité bi c'est une actualité très politique très très politique parce que ñu ngi jëm ci présidentielle 2019 moo tax ma dalal fii suñu gan docteur Maurice Soudieck Dione qui est professeur au niveau de l'UGB en même temps qui est politologue qui est professeur de sciences politiques ma nuyu la docteur. maa ngi lay fay Pape Alé. yaa ngi ci jàmm maa ngi ci jàmm di nuyu aussi suñu seen téléspectateurs yëpp. très bien alors euh, l'actualité nag tey je pense que c'est au pas de charge parce que démb la ñu commencé je pense le dépôt des parrainages. déposé woon nañ ba pare dépouillement parenage bi conseil constitutionnel tàmbaliku moom ay information yu bëri mais maintenant kenn xamul sax ban information moo ci vrai ak bu nekkul vrai ndaxte boo liiree presse bi tu te retrouves plus finalement doo xam kan moo jàll ak ku jàllul parce que je vous donne des exemples très précis on nous dit ici à la une de l'observateur premier bilan des morts du parrainage Hadjibou Soumaré et Boubacar Camara recalés Macky Sall Sonko Idi Madické Gakou et Issa Sall passent bon alors ça c'est la une de l'observateur nga ñëw ci enquête mu bindal la pour la première journée de contrôle des parrainages seules deux listes ont été validées à pour cent à savoir Benno Bokk Yaakaar et Pastef il reste à Idrissa Seck quelques petits détails à régler Hadjibou Soumaré recalé Madické Niang Boubacar Camara et Gakou n'ont pas pu pour le moment valider leur parrainage déjà donc rien que même l'information on sait pas qui, qui est passé qui n'est pas passé waaw c'est compliqué hein? compliqué ndax euh, parrainage bi ni ñu ko doxalee dama yaakaar ne dañ ko euh, dañ ko profitoo dañ ko yàkkamti ndax euh, dafa am loo xam ne Sénégal moom la ñu baaxoo woon depuis 1992. Mm. maanaam lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu POM yi ci charte yi nga xam ne moo tënk POM yi ñu waxtaanee ko pencoo ko boo xam ne ñëpp danañ ci ànd. Mm. ñu dal di koy teg ba nga xam ne acteurs yi dinañ ci mën a. Euh, ñoom ñëpp bokk euh, nangu. Hmm. Euh, booy xool dafa mel ni rek moo nekk bëree mën nañu jël exemple ci bëre bu ñu nee mbappat la dañu jàpp ne amul dóor. amul dóor bu ñu nee bëre dóor la ñu jàpp ne amul mbëkk amul wekk amul matt. Hmm. donc sart yi nga xam ne moo tënk POM yi dafa am solo wante bu sart yooyu leerul bu fekkee waxtaanee wuñ ko bu ñëpp ànd ci loolu dafay indi ay jeexi jaaxa tey ragal naa ni dafay tàmbali rek wante jeexagul. est-ce que jàpp ne euh, c'est un premier filet pour éliminer des candidats comme ni ñu ko waxee. waaw euh, du ma ne c'est un premier filet pour éliminer mais. Euh, ndax euh, du problème mu doublon yooyu kenn mënul wax ne tel candidat lañ ci viser. Euh, mhm. de face nommément wala diw lañ ci bëgg a. gàllankoor mais le fait di wax ne man damay wuti 3 millions de signatures alors qu'on a besoin de au maximum de 65 millions de signatures il y a d'autres objectifs cachés. loolu dama jàpp dama jàpp ne c'est euh, stratégie la woon pour ñi nga xam ne ñoo ŋànk nguur gi. Mhm. pour capturer l'électorat avant l'élection. Mhm. maanaam jël ay nombre de parrains yu bare ba nga xam ne ñeneen ñi bu du ñu mën a parrainer. ne euh, déposé aussi njëkkante njëkkante déposé ngir doublon yi tax. Euh, ñu na la invalider yeneen candidature yi ndax xëy na jàpp nañ ne élection présidentielle bu ñu cay dem candidature yi ni muy gën di néew ñuy gën di am chance di jàll premier tour ndax législative yi gisoon nañ ne liste yi bare moo gënoon a arrangé nguur gi mm. ndax bu fekkente ne danga ak raw gàddu bi ci liste départementale boo rawee benn baat rek euh, siis yëpp ngay dal di jël voilà euh, très bien on va essayer de prendre parce que aujourd'hui on a une émission qui sera ministère de euh, monsieur l'ancien premier ministre Hadjibou Soumaré qui recalé donc s'il est en ligne on peut l'avoir au téléphone pour xam en réalité lan moo xew démb ci conseil constitutionnel en tout cas le conseil constitutionnel a du pain sur la planche. ah oui ça c'est sûr. am na liggéey bu rëy bu ñu war a parce que tey jii ñoom moo ñoom surtout que ak ni ñu attaqué justice bi ñoom tey ji seen wareef moo di fexe ba lépp lu ñuy def jaar ci yoon. jaar ci yoon lépp Euh, li diir bi ñu am diir bu gàtt la. absolument ngir ñu mën a vérifier saytu signature yi dafa bare. Mhm. ak doublon yi te boo pare ne kenn munoo pare ne keneen donc loolu yëpp ay jafe-jafe yu tar la yoo xam ne waroon nañu mën a bàyyi parenage bi ba jëmmi jamono. Euh, bàyyi caution bi fa mu nekkoon ba nga xamante ne dal dina gën a am ci diggante ñi nga xam ne ñoo sekk kujje gi ak ñi nga xam ne ñoo ŋànk nguur gi ba nga xam ne euh, bu ñu jéggee élection 2019 yi danañ ci mën a waxtaan. alors Mapanda s'il est en ligne on peut le on peut l'avoir hein allô. je pense que on va essayer de de de voir euh, si on nous dit que d'autant plus que ñaar nañ ci wax c'est Boubacar Camara et Adjibou Soumaré. waaw Boubacar Camara Adjibou Soumaré Euh, waaw xaw ma. et doo xam sax ban information moo ci mm, baax. parce que tu dis Cheikh Hadjibou Soumaré victim première victime de sept sages. nga ñëw fële on te donne aussi l'autre information de Boubacar Camara recalé donc c'est c'est c'est problématique. mais est-ce que aujourd'hui liñ viser ci parrainage bi moo di fexe ba segg candidat yi dañ ko réussir. loolu dana jafe wante yaakaar naa ne xëy na loolu lañ ci jublu segg candidature yi. Hmm. wante euh, booy xool Sénégal mosuñu am problème mu candidature 2008 candidat la ñu amoon. 2000 ah. sept ñu am quinze candidats 2012 ñu am quatorze candidats. Mhm. kon fondamentalement mosuñu am problème mu candidature dama yaakaar ne dafa am ay stratégie politique yu lal euh, ci parrainage bi te stratégie politique yooyu bi ñu koy doxal dafa fekk buumu kóolute gi dog ci diggante ñi ngànku nguur gi ak ñi féete ci kujje gi ndax élection législative yi ni ñu ko organisé ñëpp gis nañ ko mhm. ak rëq-rëq yu bare bare bare yoo xam ne dafa yàq élection bi dafay gàkkal deru Sénégal delloo démocratie Sénégal ginnaaw lu mot ñaar fukki at. Mhm. Euh, ci gannaaw. absolument euh, je pense que Régis si on peut avoir euh, s'il vous plaît euh, l'appel téléphonique hein, si c'est possible allô. oui allô. allô. allô oui. oui Mapenda vous êtes en ligne en direct sur la 2STV allô. allô oui. yaa ngi may dégg bu baax. waaw man de maa lay dégg bu baax. waaw léegi dama bëgg nga expliquer ñu démb. ba ngeen demee déposer li nga xam ne mooy dossier seen candidat Cheikh Hadjibou Soumaré lan moo xew ci biir conseil constitutionnel nga expliqué ko pour mu leer ci bopp sénégalais yi. Euh, man la Boubacar Camara. Boubacar Camara voilà. waaw di candidat coalition FIPU alternative citoyenne. Mhm. Euh, démb conseil constitutionnel dañuy woote ne dañuy def réunion technique rek pour xool vérification parrainage euh, bi ñu ñëwee. ñu projeté ñu benn euh, logiciel boo xam ne dafay génne li nga déposé ñun ñu ngi déposé cinquante neuf mille quatre cent quatre vingt treize parrainage parce que comme xamuñu woon naka la ñuy contrôler ak yan ndëgg tërëx lañ ciy def dañuy déposé loolu te cinquante et un pare na di xaar xam fan la ñuy jaar bi ñu projeté ba pare ñu ne waa ah, li ngeen projeté de vingt trois mille trois cent cinquante sept moo ci baax trente six mille la ñu rejeté pour tout motif ñu ne waaw trente six mille pour tout motif ne dix mille yi cinq cent cinquante neuf ay doublon yaa ngi lay dégg. maa ngi lay ak kan. dañu ne rek doublon la ak yeneen candidat. nga ne da ngeen yéen ci cinquante mille. Euh, nga ne ci cinquante et un mille yi lan la moo ci baax. ma ne sur cinquante neuf mille yi ñu déposé. cinquante neuf mille yi ngeen déposé. nee nañu vingt trois mille moo ci baax vingt trois mille trois cent cinquante sept pour ñoom. ci ñoom ba pare ñu ne. waaw waaw ñu ne trent six mille. cent trente six yi dañ ko rejeté pour tout motif maanaam ndax affaire ndax ay ay yëf yu bare ci biir 36 millions yooyu la yor. waaw ñu ne 10 mille yi doublon la. waaw yeneen liste yi ñu jiitu dañoo bind même personne yi. mais waxuñu ñan la waxuñu APR la waxuñu kan la mais li gën a garaaw ñu ne dafa am 25 567 77 déglu baax lu may wax ñaar fukki junni ak juróom ak juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar yoo xam ne yi dañu ne nekkuñu ci liste électorale bi. wala région région bi ñu leen def ñu nekk ñu ko ma ne leen waaw ku am carte électeur CEDEAO am numéro électeur nga ne nekkul ci liste électorale yow ban liste électorale nga am mënuñu tontu ci ñaareel ba ñu ne nekkuñu ci région yi région yi ñu leen def parce que dañu fexe ba ñu dañu déposé pour juróom-ñaari région ñu fexe ba génne nit ñi déplacé leen xaw ma kan moo leen déplacé ba nga xam ne sur cinq régions dootoo motal deux mille yi <laughs> kon ñu ne nekkutuñ ci régions yi ma ne leen waaw mais même bu nekkul ay région ci régions yi ñoo ay ay parrain lañu waaye yéen ban fichier ngeen am ba mën a wax ne kii nekkul ci région yi parce que li ngeen wane logiciel la rek logiciel yaa koy jox information bu dee information bi nga ko jox fi nga ko jëlee dañu ko manipuler ba pare doog la ko jox ah problème de am. te hmm. effectivement naka nga mën a comprendre lu toll ci vingt cinq mille personnes yu am carte CEDEAO nga inscrire leen ñu ne nekkuñu ci fichier bi ñenn ñi ñu ne nekkuñu ci fichier bi ñenn ñu ñu ne nekkuñu ci région bi leen def te yow ngay recopier carte d'identité yow même bu amee différent entre li nga bind ak liste électorale yi mais li nga bind ci te mu jóge ci carte d'identité bi moom moo primé à moins que carte d'identité bi ñu la jox nekk foo euh, fausse carte d'identité loolu moo wone aujourd'hui tey nag dafa leer nañ ci contrôle parrainage Boubacar Camara ci la ñu gisee clairement lu tax le président Macky Sall buggul woon joxe fichier bi buggul joxe fichier bi parce que da ko buggoon manipuler ba pare jox ko conseil constitutionnel mu éliminer candidat yi nga xam ne yii ñoo ko intéressé ñi mu bëgg a éliminer c'est-à-dire ñi mu bëgg a éliminer ñëpp mooy ñi nga xam ne xalaat na ne bu ñu bokkee ci élection yi dinañ ko indil problème soit parce que am nañu coefficient personnel bu ko mun a permettre soit am na ñoo xam ne candidat yoo xam ne dafa am yeneen yoon yu leen kale yu mel ni Karim Wade wala Khalifa ñoo xam ne mën nañu am lien ak ñooñu loolu mooy stratégie Macky Sall. très bien kon nag dafa leer ne fii mu nekk nii leer na sénégalais yëpp que Macky Sall dafa violer loi bi pour bañ a joxe fichier bi et actuellement mu ngi def lu garaaw parce que mu ngi manipuler conseil constitutionnel jox leen fichier boo xam ne loo xam ne sax du fichier parce que carte électorale bi. daf leen di manipuler wala wala wala daf leen di manipuler wala ñoom tamit ils sont conscients de cela. ah maintenant nag ils ont ça ils ont leur responsabilité. ñun dinañ leen jox toutes les informations. moi j'ai toutes les preuves des manipulations du du document qui a été donné au conseil constitutionnel toutes les preuves. Mmh. maintenant il appartient au conseil constitutionnel de jouer son rôle. normalement document bu mel noonu boo ko amee war a contrôler ay parrain mais da leen koy jox. ay ay ay candidat da nga leen koy jox ñoom ñëpp ñu contrôler seen parrainage ñu xam ne ci lii lañ leen di contrôler ñu xam ban procédure lañ leen di contrôler mhm. waaye yeew rek ne nit te lii baax na lii baaxul te yow li nga koy contrôler yow rek yaa ko am kenn xamul fu mu jógee te ki la ko jox c'est un compétiteur comme ñoom mhm. donc voilà la situation qui est extrêmement grave au Sénégal est-ce que léegi c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal mhm. ñu arrivé à ce niveau où le l'exécutif organise une manipulation depuis le début avec les cartes électorales avec le parrainage avec le ministère de l'intérieur la DAF yëpp mu organiser ko pour simplement mën a jàllaat def une élection truquée aujourd'hui voilà la situation de ce pays là voilà merci beaucoup euh, ça c'était Boubacar Camara je précise la régie yéen a ngi def confusion yéen a ngi dugal image Hadjibou Soumaré c'est pas lui ma numéro bi ma leen njëkk a jox boobu laa leen wax ngeen woo ko kooku mooy mandataire Hadjibou Soumaré lui aussi il fait partie lui c'est le deuxième euh, bi nga xam ne yaa ngi dégg li mu wax. ils vont mooy requête bi nga xam ne formulé woon nañ ko avoir le fichier électoral. électoral waaw loolu dafa nekkoon requête bu am solo ndax bu fekkente ni da ngay da ngay saytu ay nit war nañu xam au moins base bi. xam fichier bi euh, ci kaw lan lañ leen di valider wala di invalider ay parrains. donc bu fekkonte ne joxe woon nañu. Euh, liste yi naam sax nee nañu liste yi balaa ñu koy joxe fokk mu am ay candidats mais comme fi mu ne nii parrainage bi dafa dugal des candidats à la candidature mais ñoom am nañ comme ñoom aussi am nañ fichier bi waroon nañu rek comme euh, bu fekkente ne leeral rek moo leen moo leen tax a jóg te loolu mooy andi jàmm waroon nañ mën a jox candidat yëpp fichier bi alors on au niveau de la régie est-ce qu'on a Mapenda en ligne lui aussi c'est le mandataire de Hadjibou Soumaré allô oui Mapenda oui bonjour Pape Alé. na def. maa ngi sant bu baax na nga def. ah sant yàlla alhamdulilah léegi est-ce que mën nga ñu expliquer yow sa cas nan la demee ba ngay déposer dossier wu sa euh, candidat. waaw cas bi c'est très parce que boo duggee ci biir saalu conseil constitutionnel bi. waaw da ngay fekk euh, juge yi toog greffier bi toog société civile toog ñee ci benn rangée léegi ci ginnaaw am na fa benn. table boo xam ne dañ fa installé ay ordinateur alors bi ma dugg see dañoo yëkkati benn enveloppe wan ma ko laaj ma ndax kii mooy enveloppe bi defoon scellé bi ma xool gis ci sama signature man leen effectivement enveloppe bii la ñu dem wan ko société civile wan ko juge yi dajji ko biñ ko dajjee ñu daal di koy jël daal di koy dugal ci ordinateur jël clé bi ci nekk laaj ma ndax xamee naa ko mun leen si xàmmee naa ko ñu dugal ko ci ordinateur bi nekk ci table bi ci ginnaaw alors muy défilé di défilé parrain yi di défilé région yi ba caali jekki-jekki affiché benn résultat alors résultat bi mu affiché ñoom ñu ni que am nga temps de parrain yoo xam ni euh, ay doublon la am nga tant de parrain yoo xam ni euh, maanaam dañ leen dañ leen a pour autre motif alors ma daal yëkkati sama loxo laaj président bi ni ko mais lan mooy rejet pour autre motif mu ni ma loolu régit pour autre motif mooy dafa am lu tax ñu dàq leen mais bu ñëwee àllarba dinañ la ko leeral. pourquoi àllarba toog pourquoi àllarba. àllarba bii di ñëw. ma ne pourquoi àllarba ah je sais pas xaw ma ñoom ñoom lañ décidé ñoom dañ décidé ni dima mercredi la ñuy jox résultat yi mais ma defee ni nit boo nee ko damaa sa ay parrain war nga ko jox motif bi nga xam ni moo tax nga rejeté ko ba pare aussi ma jàpp ni nit sooy rejeté di contrôler mais li nga xam ne fichier bi nga xam ne ci ngay sukkandiku pour contrôler mais war na koo mën a won nit ñi wax leen di ban fichier la lii mooy lan mais lii moo taxoon depuis njaar génn ga nit ñaa ngi taxaw di laajte fichier électoral bi ñu bañ ni duñ ko joxe ñu bañ ni duñ ko génne te loolu mais booy ne loo nit da koy jox fichier électoral bi man dégg naa Boubacar Camara di wax naan déplacement yi ñuy defal mais ils ont déplacé tout le monde d région en région ils ont créé des bureaux nouveaux des bureaux nouveaux lu nekk def nañ ko léegi nag li nit ñi bëgg a xam mooy su fekkee ni juge yi ñoom dañuy juger xanaa dinañu jox ko ñi nga xam ne dañ leen a rejeté ñi nga xam ne dañ leen a rejeté dinañu jox liste bi ba pare aussi booy rejeté nit xanaa di ko wax outil bi di nga ko wax li tax yow nga rejeté ko di ko wax li tax nga rejeté ko mais mënoo jékki-jékki ne ko nit ki rek am nga temps du ñu génn nag ci salle bi signalewuñ ñu document joxuñu ñu document joxuñu ñu dara loolu tax Pape Alé man bëgguma dugg ci waxu chiffre parce que xam naa ni tribunal lu ñuy joxe la mais ñoom bu ñu génnee chiffre yi ba joxe ko loolu nit ñi dinañ mën a wax ak ñoom mais ñun sax li ñu reproché quand même du lu am importance parce que denc nañu trois fois une réserve trois fois supérieure ci ñoom li ñuy li ñuy reproché parce que xamoon nañ ni ci lii lañ ba pare ñu ngi ci commencé dugal benn notion boo xam ne amu ci woon. ba notion la. mooy notion de rejet boo xam ne récupérable ak rejet définitif non récupérable. lu loolu. voilà ah non ñoom noonu lañ ko bindee ils ont dit que tu as tant qui est récupérable c'est ce qu'ils appellent les doublons. Mhm. mais tu as tant qui est irrécupérable. et c'est ça que les gens ne peuvent pas comprendre pourquoi mais nit ki kay bu ci nekkul nga contrôler nekku ci. mais jox nga ko délai jox ko délai bi mu ñëw changé ko mais doo ko ni lii mënoo koo changé lii da koy changé. non mais li ma jàppoon mooy yéen bu bu nekkee ne amu leen le nombre requis dañ leen di wax ne leen amu leen temps de signature yu des ngeen dem indiwaat loolu la waxoon. loolu la waxoon waaye du loolu la ñuy doxal de li ma gis waxuñu ko nag waaye li ma gis ñuy doxalee nuruluma ni loolu joxuma loolu daf maa jox ni ñoom dañoo am catégorie parrain yoo xam danañ nangu. maanaam ñu récupérer leen boo dee doublon la mais am na catégorie parrain yoo xam moom lañ tuddee les refus pour autre motif du ñu nangu nga changer leen. bon on est parti euh, léegi alors yéen yéen a ngi préparé pour seen déposer waat. waaw ñun kay ñun pare na ñun ñun li ñu yor ci parrain ak li ñu li ñoom li ñu wax ni loolu la ñun loolu du suñu problème. du suñu problème parce que yor nañ ko mais dañuy toog di leen déglu parce que nag ñoom aussi lii ay wax rek la. ñu jox ñu waxuñu dara dañ ñoo xon taxawaloo fekkeloo ñu ñu dem mais bala ngaa mën a wax kay nga xaar bañ jox la këyit gi mm-hmm. comme ñoom nee nañu àllarba la ñu joxe këyit ah ñu ñu xaar. nga baax na kon tamit euh, ñun dinañ suivre euh, li nga xam ne moo di euh, mbir mi ba xam fan lay mujjee parce que nag ça devient flou. finalement ah ça ah. ça devient très flou. très flou xam sur quel danser véritablement. la parce que dañu changer dañu modifier substantiellement règles yi. Mhm. donc bu fekkente dañu modifier dañu andi ay coppite ci ni nga xam ne noonu la POM yi war a tëddee te waxtaanuñu ci te jëluñu temps pour régler question technique yëpp yi nga xam ne dafay ànd ak loolu euh, problème yu mel nii rek la mën a jur. alors euh, on va parler beaucoup de l'état de de l'avancée de notre démocratie et tout ça alors pour pour en parler. damay fàttali euh, daf benn benn fàttaliku benn discours bu Macky président de la République defoon Burkina juste après son élection mu demoon rencontre avec les Sénégalais vivant au Burkina mu am lu mu leen waxoon euh, ne lan moo nekk objectif moom ci mandaam ñu déglu élément boobu dellu si plateau bi nag tàmbali waxtaan ak ki nga xam ne moo di docteur Maurice Soudieff Dione parce que lu ñu war waxtaan waxtaanee dafa bari trop sur l'état des lieux de nos institutions notre démocratie notre république la séparation du pouvoir est-ce qu'elle est réelle combat bi ñu mëne woon ba mambre 2012 moom 12 morts est-ce que aujourd'hui véritablement sept ans après on peut dire que on a au moins atteint yenn objectif yi nga xam ne taxoon na sénégal yi doon xeex pour une république véritable des avancées qualitatives de notre démocratie juste avant may wax ne euh, y a beaucoup d'informations yoo xam ne xam nañ ko ci wàllu parrainage bi mais du objet débat bi dinañ ci dellu si euh, yoo xam ne xam nañ ko ci li nga xam ne moo di parrainage bi un euh, les échanges de SMS euh, yi am ci ay diggante ay kilifa il faut recaler tel pas recaler tel ah non tombe je pense que am na ku fuite information bi ah pourquoi le conseil conseil tombe il faut pas donc yooyu yëpp xam nañ ko l'histoire aussi de Malick Gakou qui a été fouillé à l'aéroport pendant deux heures de temps également les raisons aussi nous détournons dañ ci dellu siwaat ci beneen waxtaan boo xam ne xam naa buñ dajee ci Dakar Matin dañ ko waxtaanee ay ci ñu seetaan euh, li nga xam ne moom la président Macky Sall waxoon dellu siwaat ci plateau bi l'une de mes premières missions ce n'est pas de construire des routes des autoroutes et des ponts la première mission c'est de reconstruire l'état de droit Or, l'état de droit, on va l'apprécier de façon immatérielle. Ce n'est pas un bâtiment qu'on verra pour dire c'est un état de droit. Mais ce sont des valeurs, ce sont des principes. C'est l'égalité des citoyens devant la loi. C'est la lutte farouche contre la corruption et le népotisme. C'est diriger le travail en dogme et que tout le monde soit convaincu que c'est par le travail que nous pouvons développer notre pays. à l'aune de ce discours sept ans après boo ko doon noté par rapport ak li looy wax. ah damay damay damay wax ne rek li ñu gis. Mhm. waroon na ak li ñu li ñu digoon ak li ñu waxoon ndaxte booy xool euh, contexte bi président Macky Sall jëlee nguur gi mooy contexte. crise politique bi gën a métti ci crise politique yi Sénégal mm. xam crise 2011 2012 mu am une douzaine de morts euh, fitna bi yeewu ci réew mi ñu dem ba yaakaar ne sax xëy na euh, leneen mën na cee xew yàlla def ci sutura boo ñu wote ci jàmm donc kon bu fekkente ne ñëw nañu euh, tirer les conséquences wara a tirer les conséquences des leçons par rapport ak régime Abdoulaye Wade ñu ñëwaat mu mel nii dañu ne tey la wàllu gën a aay ak ak yelleefu ñi nga xam ne ñoo féete ci kujje gi ñu joggati ko justice bi ñu mel ni dañ ko jël di ko xeexe politiquement état de droit égalité des citoyens yooyu yëpp ñu bàyyi ko li nga xam ne mooy corruption mooy guerre euh, itamit lañ ci waxoon euh, wax dëgg gisuñu ko ndax booy xool ger mooy dundal politique u Sénégal parce que système clientéliste la ñu nekk kon bu fekkente ne ger mooy dundal politiku Sénégal ger aussi mooy nërmeel mooy daaneel koom-koomu réew mi réaliser développement mënuñu taxawal koom-koomu réew mi te xeexuñu ger xeex ger nag dafay fekk ne ñi nga xam ne dañu falu dañu jàpp ne euh, politique waratul dunde ci kaw ger wante loolu pour ngir nga mën ko def dafay fekk ne euh, sa mbébét du nekk rek bëgg a faluwaat da ngay nangu ne l'obsession du second mandat l'obsession du second mandat même yenn gëm-gëm boo bëggee deuxième mandat day mel ni doo ko wéerati ci askan bi moo la fal alors que pour moi il était bien élu waaw mais damay damay jàpp ne euh, euh, élection am dafa dafa particulier ndax on a plus voté contre Abdoulaye Wade que pour un projet et heureusement que euh, booy xool Abdoulaye Wade y a eu un tassement de ses résultats autour de 34 pour cent. Mm-hmm. premier ak second tour. loolu dafay wane ne sénégalais yi dañ ko sanctionné mais sanction boobu il fallait que ki nga xam ne moo jël deuxième. moo bénéficier wu ndax yaa fi yaa sës mooy tax falu donc contexte boobu il faut aussi ñu jël ko en considération mais bu ñu bu loolu weesoo dañu jàpp ne aussi euh, il y avait moins d'adhésion à un projet politique et loolu pour ñu mën ko am Sénégal foog ñu régler yenn question yu sew yi maanaam est-ce que opposition bi war na marche est-ce que opposants yi respecté nañu seen ak ak seen yelleef est-ce que justice bi euh, tëddee na njaaxaanaay est-ce que corruption bi wala ni euh, magistrature bi doxe ak yooyu yëpp tegu na ci yoon loolu bu fekkente ne amuñu ko ci suñu démocratie dañu nekk Euh, ci ay détails laa ko mën a tuddee bàyyi question de fond yi maanaam euh, nan la ñu def ngir euh, gën a defar paj mi gën a defar njàng mi gën a defar kaaraange bi ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mooy soxna soxla ak yitte askan bi loolu buñ ci farluwul dafay nekk loo xam ne dafay doy ci réew mi te du dëppoo ak li nga xam ne moom la askan bi bëgg. alors pour vous prouver docteur qu'on n'a pas évolué. je vais le 27 décembre 2011 dama def benn émission euh, décryptage problème yi ma doon posé yëpp mi ngi nekk aujourd'hui à l'ordre du jour alors on va regarder bande annonce émission boobu ngeen déglu lu ma doon wax sénégalais yi ak tey jii nga comparé ko c'est les mêmes problèmes qui se posent et moi j'étais très surpris de voir ça alors on va regarder bande annonce décryptage 27 décembre 2011. 11. seen émission décryptage fas yéene waxtaanee fitna gi ñu seetlu ci biir kujje politique gi lan moo ko waral est-ce que police mi ngi def liggéeyam na mu waree ñi nga xam ne ñoo yor biir bu yi est-ce que ñoom it seen liggéey ñi ngi koy def na mu ware ngir waxtaanee loolu yëpp nag dañ dalal ñi nga xam ne ñoo bokk ci kujje politique gi dalal fi tamit ñi nga xam ne ñooy sàmm àq ak yelleefu doomu aadama loolu yëpp nag mi ngi fas yéene am àllarba. c'est comme si c'est une euh, euh, euh, c'est éternelle répétition lañ nekk. Mhm. parce que soo xoolee démb opposition mi ngi doon marche pour <laughs> pour une la même chose. c'est la même chose c'est la même chose c'est un éternel recommencement donc dafay mel ni Sénégal suñu démocratie. Euh, mën nañ sax remettre en cause des alternances est-ce que alternance yi nekkuloon ne benn moment boo xam ne ñu yore nguur gi xamoon nañ ne bu amul alternance xëy na réew ñu mën na fa jaaree am problème ñu dem vers cette solution la mais je pense que au-delà des alternances dañu war a euh, travailler à routiniser à institutionnaliser mm. les règles du jeu politique maanaam ñu dem ba nga xamante ne charte yi nga xam ne moo euh, tënk po mi ñëpp ànd ci ñëpp d'accord ci ñu tege ko boor ba noppi nag di jongante ci xel ci xam-xam ak ci xalaat ci loo xam ne moo war a jëmale réew mi kanam moo war a jëmale suñu koom-koom kanam te loolu booy xool dafa tumuranke ci réew mi et euh, fi mu toll nii dañ ci la faute système qui waaw dama jàpp ne système bi la système bi la ndax euh, système bi euh, booy jël président de la république pouvoir yi mu am dafa bari te loolu depuis 1962 la maanaam crise bi amoon diggante sengoor ak Mamadou Dia foofu la sengoor jëlee pouvoir yëpp concentré ko entre les mains du président de la république léegi président de la république bi nga xam ne dafay ñëw fekk système boobu bu fekkente ne rational nanguwul ko rationaliser dafay nekk ni ki buur buy buum ak di buum yi te loolu tànk nit ki nga xam ne moom la ñu fal euh, nanguwul ne loolu war nañ ko soppi loolu kenn du ko mën a soppi ndax moom moo téye lenge yi booy xool même suñu code pénal code pénal bi mi ngi daté de 65 code procédure pénale bi ngi daté de 65 65 mooy euh, bi nga xamante ne pouvoiru Senghor mi ngi gën a métti ci autoritarisme maanaam ci dal ci kaw ku gi ci joggati ak ak yelleefu doomu aadama yi ci loolu la la ñu tege ñaari code yooyu muy code de procédure pénale ak code pénal 1965 donc code yooyu tey dafa laaj ñu defaraat ko ñu raxasaat ko génne ci lépp li nga xam ne Euh, dafa doon fàttali jamonoy jooju nga xam ne euh, démocratie Sénégal loon fii. Mhm. donc bu ñu jógee ci loolu aussi président de la République dafa war a rationaliser ay pouvoir am naam newuñu sax ne euh, système bi fi am dafa bon ndax booy xool système bi moo tax Sénégal am stabilité. 1960 bu léegi. wante système bi foog ñu rationaliser ko ni ñu koy rationaliser mooy gën a jox. Euh, assemblée nationale doole ni ñu koy gën a joxe doole mooy ñi nga xam ne ñoo fa nekk ci kujje gi ñu may leen ay possibilité ñu am ay commission d'enquête wàññi lim bi nga xam ne moom la war am mais problème bi assemblée bi kay mooy mode d'élection bi mais am nañ possibilité def ko mais man nga tëdd sa kër di nelaw nekk député il suffit du bon vouloir du président de la République mu dugal la ci liste nationale rek nga jàll waaw wante waaw loolu euh, waaw loolu problème la mais dama yaakaar ne mun nañu équilibrer def proportionnel ak liste nationale ndax booy xool aussi liste nationale dafay andi li ñu naan équilibre des institutions ndax bu fekkente ne dañu def proportionnel intégral euh, waxaale bi dafay bari ci biir assemblée bi te waxaale bu baree ci biir assemblée xëy na mën na jafe ñu génne majorité wante bu fekkante ni dañu équilibré ñu ne ah peut-être def ko cinquante cinquante te booy xool sax noon la nekkoon cinquante cinquante wante booy xool nguur gu ñëw dafay gën a roñ ci proportionnel di roñ di roñ ngir am majorité boo xam ne dafa jéggi jalo majorité mécanique booy xool plus <laughs> lent léegi c'est électronique <laughs> électronique voilà <laughs> alors euh, foofu lay mais aussi euh, euh, docteur Maurice Soudieck dafa am benn affaire bu ci am tamit xam nga da wax système mais sim système nit moo koy fonctionné te ñun ñu ngi commencé yàgg quand même dans le cadre du journalisme mais par exemple bu ma dégloo 31 décembre bi lay def sept ans mhm. pile poil le président Macky Sall était là sur mon plateau pendant deux heures de temps lim ñu waxu li mu waxoon yëpp soo ko xoolee benn par benn nga détecté ko hmm. da ngay wax ne su merveilleux hmm. kii su ñëwee vraiment le système va changer mais est-ce que nekkul tamit la responsabilité des hommes politiques sur le plan éthique waaw loolu dëgg la sur le plan éthique parce que loo gis rek euh, éthique moo koy daal même droit mm-hmm. droit éthique moo ko daal booy xool Euh, Hans Kelsen bi mu defee le système pyramidal des norme maanaam li nga xam ne noonu la euh, décret war a toppee loi loi topp constitution ci kaw constitution dafa teg benn norme mu ne la norme euh, pacta sunt servanda maanaam l'accord lii les parties booy xool norme boobu dañu ne norme coutumière la mais dama jàpp ne norme morale la parce que lii dëgëral droit mooy sécurité prévisibilité ak confiance te loolu nekkul ci wàllu technique rek mais ci wàllu éthique la boobu benn la ci ñaareel bi mooy bu fekkente ne da nga da nga diggee ne euh, bu ngeen ma falee lii dinaa ko def euh, da dama yaakaar ne homme politique yi gëmuñu ne ñiy fal dëgg-dëgg nekkuñu ci appareil yi ñiy fal dëgg ñu ngi seen kër majorité silencieuse boobu ñooñu ñooy fal wante ñoom seen culture politique maanaam ni ñu tàmm politique ak fi ñu leen nàmpatal ci wàllu politique. mooy tax léeg-léeg du ñu mën a def rupture yooyu. du ñu am code d'honneur. du ñu am xëy na sax mën nañu du ma wax ne du ñu am code d'honneur mais fi ñu seen jaar-jaar ci politique xamuñu leneen te gëmuñu ne bu ñu bu ñu doxalee neneen yaakaar na ne danañu ñàkk nguur gi ba tax na duñ ci bëgg a jaar wante gëm naa ne bu fekkente ne nit ki ñëw na nga respecté say engagement rationaliser waxuñu nga jël pouvoiru président yëpp pasar pasaree ko parce que loolu mën na andi instabilité mais ñi nga xam ne wàllu justice nga xam ne ñoom dañu war a moom seen bopp nga jox leen indépendance parce que loolu institution dafa am solo institution pour mu dox euh, ni mu waree foog mu am crédibilité am autorité am légitimité maanaam institution bi ñu weg leen ñi nga xam ne ñoo koy doxal ñu weg leen eh, institution bi am gëdd institution bi am kilifteef institution bi am kóolute diggante moom ak askan bi te loolu bu amul institution yi day nasax te institution eh, booy xool ñetti mbir lay jëriñ ci ab réew institution day yoonal institution eh, day dogal institution it day seral ci wàllu démocratie institution day yoonal maanaam mooy jël sart yi nga xam ne suñu dundin ñun ñëpp ci la ñu war a jaar ci wàllu boobu Euh, boo jël institution itamit euh, dina euh, dina dogal maanaam dogal yi nga xam ne moom la ñu war a jël ngir ñu jaar ci doxal réew mi institution yi ñoo koy jël institution itam day seral ndax dañu bañ mu am extrémisme maanaam lenn loo gis lu ëpp am ci walla ñenn ñu ëppal di ci yëngu mm. loolu mooy andi seral bi bañ mu tàng jër mbaa mu sedd guy mu saf-sàpp mbaa mu lawet doom mm. donc loolu romains yi dañ doon wax virtus in medium stat la vertu et dans le juste milieu maanaam li baax ak li ñu taamu moo nekk ci diggante bi wante loolu bu fekkee dañ ko bëgg foog ñu delloo institution yi seen cër. président de la république on a l'impression nous quand on parle de république comme dit maître Mame a l'impression d'avoir une république mais en réalité <laughs> au fond boo creuser da xam ne tout le pouvoir est entre les mains d'un la République. waaw day mel ni euh, monarchie la ñu nekk. monarchie monarchie te loolu man du ma wax sax républicaine parce que. monarchie monarchie parce que ki nga ne dañu teg ay ay ay kii rek ay naxee mbaay la rek mais boo boo creuser tuuti rek boo gasee tuuti nga gis ne li ñuy wax nit ñi amul. te loolu dafa dafa doy waar bu fekkente ne dañu euh, def teg démocratie foog ñuy respecter ak ak yelleef doomu aadama yi état de droit maanaam nguur bu tegu ba noppi tënku ci yoon yoon mën koo daan ci àtte mu nangu ko ba noppi di sàmmonte ak ak ak yelleef doomu aadama yi loolu dafa am njëriñ ndaxte loolu mooy tax citoyen bu nekk nekk ci sécurité ndax euh, du du aaju ne am nga pouvoir wala amuloo pouvoir am nga xaalis wala amuloo xaalis am nga ay xame wala amuloo ay xame loolu mooy yemale loolu mooy tax ñëpp mën a gis seen bopp ci institution yi gis seen bopp ci réew mi bu ko loolu bu amul nag day mel ni kon réew mi ñenn nit la fi nekkal état bi ñenn nit la fi nekkal bopp ba noppi génne ci ñeneen ñi te loolu day tax ñeneen ñooñu bu ñu laaj seen àq ak seen yelleef euh, violence da ciy yomba am ndax comme ñoom kenn boolewu leen bu ñu jógee bëgg a bokk dañu yomba dal seen kaw ci anam yoo xam j'ai entendu le professeur Abdoulaye Bathily dire en 50 ans de combat politique, je n'ai jamais vu euh, un pouvoir instrumentaliser de la sorte la justice contre ses adversaires politiques. Bah. Est-ce que d'accord nga ci parce que on a vu que pendant ces sept ans la justice n'a jamais été, mm. été autant sollicitée. waaw loolu loolu dafay poser plusieurs problèmes d'abord dafay wane ne Sénégal sànq maa ngi koy wax à propos du code pénal et du code de procédure pénale Sénégal fi ñu toll tey am na loo xam ne mënatuñu ko nangu 2018. booy xool sax dañu dellu ginnaaw ci wàllu justice maa ngi wax ne Léopold Sédar Senghor bi mu instauré un autoritarisme modéré entre 62 euh, ba 74 euh, entre entre 62 euh, ba 74 bi ñu créé PDS 76 ñu créé waat yeneen ñetti parti 78 beneen parti conservateur tegu ci période boobu sax ni mu méttee woon dafa mel ni. Sénégal fi mu toll nii dafa dellu gannaaw par rapport ak période boobu parce que période boobu amoon na lu ñu mën a tuddee un gentleman agreement entre le président Léopold Sédar Senghor et le président Kéba Mbaye bi nekkoon président Cour suprême. am na dogal yu bëri yoo xam ne Senghor daf ko daan jël mais Cour suprême da daan kase booy xool am na euh, en en droit administratif am na ci ay décisions yu bëri lu ki mel ni décision Émile Wardini. Mm-hmm. président de la République dafa jël ab dogal dàq benn étudiant. cour suprême neenal dogal boobu ne ko yow mënuloo dàq étudiant ndax nekkuloo autorité euh, ci biir université te université dafa am autonomie xam nga loolu lu lu lu. mais loolu est-ce que ça ne renvoie pas aux hommes qui dirigent parce que euh, xam nga Kéba Bay li ma benn pas doon wax mu ne ma race yooyu jeex na fi. waaw <laughs> waaw mais c'est vrai c'est certes loolu am na mais xam nga président Senghor bu ko neexoon it. Ah. munoon na fa teg koo xam ne lu mu ko wax. mu ne ko waaw ah. ci jamono jooju la gënoon a yomb mm-hmm. mais boo gisee mu teg koo xam ne ñoom ñaar ñu déggoo ci créer benn équilibre léegi ñu dem ba loolu amoon ca jamono ji ñu jàppe ne ci la démocratie ci la autoritarisme gënoon a métti loolu sax amoon ñu dem bu léegi loolu amatul après de quarante wala cinquante ans après loolu war na taxaat ñu gën a xalaat suñu institution ndax bu ñu deful attention euh, niveau mentalité yi fi mu yegg ci démocratie méngootul ak suñu ay institution donc loolu dafay créer divorce entre institution yi population bi divorce bu amee nag diggante institution ak population mm. loolu baaxul ci réew ndax mën na jee na mm-hmm. ndax population yi mën na fippu ne li ngeen bëgg a doxal ñun àndatuñu ci gisatuñu ci suñu bopp te loolu moo xawoon na xew en 2011 mm-hmm. bi population bi demee assemblée nationale ne leen yéen li ñu leen fale da ngeen defu leen ko kóolute gi ñu amoon ci yéen da ngeen ko wor da ngeen ñu bëgg a wor vous êtes des députés du président mm-hmm. waa loolu nag la ñu war a moytu il y a ou ñu def une réforme intelligente réforme intelligente boobu mooy nit ñi euh, ki nga xam ne moo yore nguur gi ne nii ma bëgg a doxale sénégalais yi dootuñu ko nangu te lañu ñu nanguwul nguuru Senghor nangu nanguwuñu ko nguuru Abdou Diouf nanguwuñu ko nguuru Abdoulaye Wade du ci nguuru Macky Sall wala nguuru keneen lañ koy nangu donc war nañ am benn intelligence politique boo xam ne da leen di andi ñu réformer de façon intelligente. et de façon est-ce qu'on euh, les assises bi nga xam ne c'est un travail. quand même bu ñëpp salué woon ñu ñëw on a changé euh, la charte de bonne gouvernance des assises par la commission nationale de réforme des institutions avec benn référendum bu ñu jox 15 points boo xam ne da ngay voté oui ou non sur les points alors que tu pouvais faire séparation c'est ça je veux dire que souvent nos hommes politiques dañuy foog ne ñooñu gën a intelligent mais on sait ce qu'ils veulent faire en réalité waaw loolu la loolu la Pape Alé ça a été des occasions manquées les assises nationales ñu ne depuis 60 dañu xalaat li nga xam ne noonu la réew mi doxee ci wàll bu nekk ci mm-hmm. économie ci institution ci démocratie ci lépp ñu ne dañ ci waxtaan ba ñu jël ay waxtaan yu am solo ay xam-xam yu am solo ay xalaat yu am solo tënk ko ñu jël yi ña nga xam ne ñoo ci nekkoon mooy parti yi ci gënoon a fës muy PS ak AFP kenn déggatu leen ñu wax assise nga ñëw jël ñu def commission euh, nationale de réforme des institutions dugal ci ay koppar yu bëri loolu mujjul fenn ñu ñëw président ne dafay wàññi mandaawam jëlee ko sept def ko cinq dem ba ci biir euh, respecté wul engagement wam ba noppi jël décision bi dal di koy porteloo conseil constitutionnel. loolu aussi di gën a favoriser ñàkku kóolute ak ñàkku. wet bi ñu am ci conseil ci ci conseil constitutionnel. ça aussi que là quand le président a dit j'ai reçu une décision du conseil constitutionnel si mi ngi doon jouer rôle mu kanam mën na wax ne non j'ai émis un avis c'est pas une décision c'est au président de la république d'apprécier mais ils ont gardé le silence. ça aussi c'est un problème waaw mais mais xam nga ñoom dañu am li ñu naan obligation de réserve ñoom dañ leen di wax rek ne. lañ leen di laaj ci wàllu yoon ñu joxe seen xalaat wante amuñu sañ-sañ di dugg ci waxu politique xëy na loolu mën nañ leen ko nangul mm-hmm. wante ki nga xam ne moo laaj te ginnaaw euh, conseil constitutionnel am na lu féete conseil constitutionnel kaw mooy askan wi mm-hmm. bu fekkonte ne dafa dem référendum ne damay wàññi kenn mënu ci dara bu fekkee ne damay soppi constitution bi jaarale ko assemblée nationale loolu kenn munu ci dara donc amoon na président amoon na possibilité respecter engagement moom moo tànn ba a respecter engagement wam ba pare jël conseil constitutionnel mbubboo ko loolu mooy li am te loolu dafay wàññi gëdd ak euh, kóolute bi ñu am ci conseil constitutionnel. absolument alors euh, nan nga mën a analyser la la fameuse déclaration du magistrat dem j'ai démissionné d'une magistrature qui a démissionné. waaw man euh, xam nga du ma du ma ne la magistrature a démissionné parce que aussi ñi ngi. Kama moom waa ngi ci xeex bu bëri. wante xam nga euh, justice symbole daf ci am solo institution symbole daf ci am solo xam nga c'est pas pour rien que bi buy àtte. robb lay sol bu dugg see ñëpp jóg mu yore martum dóor ñu ne la cour bu ñu ne kii mooy docteur bi mu sol lu weex mm-hmm. yore stéthoscope am taxaw ñu xam ne ah kii am na lu muy incarné donc symbole dafa am importance ci institution symbole boobu nag bu ñu ko yàqee dafay nërmeelal institution bi moo tax donte sax mën nañ ne cas nga xam ne Euh, peut-être dafa euh, dafa jaxase politique ak justice ay cas yu néew la wante li muy yàq ci image ci symbole ci nataalu justice bi dafay bare ba nga xam ne mën na nasaxal justice bi wante am na yeneen pàcc yoo xam ne ci wàllu justice euh, mi ngi dox magistrat yi ñu ngi ciy def seen kéemtulaay kàttan et puis ils sont très parce que l'union des magistrats du Sénégal le président était venu il y a un livre qui là bu ñu génne na leen ñoom ils se battent pour l'indépendance de la justice dëgg la et saluer parce que loolu la moo tax ma ne tey mentalité Sénégal fi mu toll ak nouvelle génération bi ak euh, euh, développement citoyenneté tey ni mu fi mu toll am na loo xam ne mënatu fi am ku ko fi bëgg a def da ngay sonal sa bopp mais du antu euh, le Sénégal dama bëgg a bind benn livre le Sénégal une démocratie en panne <laughs> kooku de dina nekk livre bu am solo <laughs> ndax da ngay gis ne dafa bëri ay défaillance dañu dem ba yaakaar ne décollé nañu xoolal bi Ablaye Wade jëlee nguur gi 2000 dafa ne woon c'est la fin l'ère c'est la fin c'est euh, le début de la république des citoyens et la fin de l'exercice du pouvoir solitaire ñu ñëw mu yéegal pouvoir solitaire foo xam ne mosu fa egg yéegal guerre gi foo xam ne mosu fa egg yéegal répression bi foo xam ne itam dafa jéggi dayo donc le président Sall ñëw moom it ah, ñu bëri jàpp ne xëy na tey la waalo gën a aay am na yu bëri yu ñu daan coow di ko méttitlu di ko naqarlu ah tey gisuñu ne am na ci coppite donte sax rupture la ñu woote woon donc kon loolu dafay wane ne dafa am éternel la commencement day nekk euh, une œuvre de Sisyphe Sisyphe mooy mm. ki nga ki ñu condamné woon nga xam ne da ngay yéegal benn benn xeer ba ci kaw xeer ba dal di barastiku daanuwaat ngay yéegalaat xeer bi di daanu ngay yéegal boo ilaa yow mi diini kon mm. loolu dañ dañ ko war a dakkal xool li nga xam ne mooy intérêt réew mi waxuñu ne président de la République dañu war a dindi ay pouvoir am yëpp noonu non parce que système bi fi am moo garantir stabilité Sénégal bu léegi loolu il faut ñu nangu ko mm-hmm. mais foog ñu ñu xool intelligemment nan lañ koy rationaliser mm. bàyyi justice moom boppam dëgëral état de droit xeex guerre ndax loolu dafa am solo ndax ger moo daaneel koom-koomu Sénégal depuis 1960 ba léegi donc képp koo xam ne jot nga réew mi te defuloo ci ay jéego liggéeyuloo foofu rek xamal ne euh, sa liggéey daanaka du am benn njëriñ ndax loolu mooy yàq koom-koomu Sénégal moo tax réew mi mënul dem fenn depuis 1960 gis nañ ni ONCAD daanoo gis nañ ñu ay BDS daanoo ni ay USB daanoo gis nañ ni ñu fi instauré ay programme d'ajustement structurel sous Abdou Diouf xale yi naan ñun dañu euh, dañu juddu rek retraité xëy amul euh, ndóol bi sori métti nit ñi sonn euh, santé bi daanu justice bi noonu éducation bi noonu fonction publique recruté waaw loolu yëpp dafa metti ci askan bi parce que li ñu yàq xaalis boobu ñu yàq di ko dundale politique ay nit di ko def seen poche parce que il faut pas se leurrer loo gis rek action boo gis rek dina jur réaction dina jur ay conséquence mhm. conséquences yi ci ñeneen ñi lay nekk te conséquence yooyu conséquences yu métti lay doon ci askan bi. alors on va vers une élection présidentielle en 2019 nan ngay analyser l'opposition on a l'impression une opposition aussi qui est très euh, rouleau par le pouvoir <laughs> waaw man du ma ne l'opposition et faible parce que xam nga euh, président de la République bu la falee nga waat euh, ci kanamu yàlla ak ci kanamu nit ñi ne di nga doxal yoon teg sa bopp ci yoon teg ñëpp ci yoon da ngay nekk beneen nit. ci bindu yu sell yi dañu noroon wax ne yàlla daf lay yëkkati ci benn martaba bu la yëkkatee ci martaba boobu yow it da nga war a yëkkatiku ba tolloo ak dayo boobu moo tax waruloo jël puissance publique di ko xeexee di bander les muscles ku wax nga ne dama lay écraser ah o faño ngóoroo rooga dem na xolum ca wàccaca le drame de cette opposition c'est qu'elle ne me connaît pas yéen xamu leen ma mais kenn joxu la doole nguur gi ngir ngay écraser nit ñi loolu dafa yomb loolu moo gën a yomb li jafe kay mooy nga yore doole nguur gi ànd ak dal teg ñëpp ci yoon dañu ne buur amul mbokk ndax yoon mooy mbokkam loolu nag bu fekkente ne yegguloo ci dayo boobu dafay wone ab motadi. Ah, ah, c'est là aussi tu vois ah, quand je réfléchis ma ne pourtant Wade quand même c'était un parce que le 23 juin 2011 moom moo autorisé la manifestation devant l'Assemblée nationale. waaw Wade li ñu ko mën a kiiwal au moins. Euh, am na benn Wade bu demee il a donné un mois à l'opposition ñu taxaw place de l'Obélisque chaque jour. meeting góor gi deelal suulilal ko te ji fi wax xanaa ni kaso. <laughs> góor gi amoon na benn charme c'est-à-dire bu jàppee ba mu ba mu dëgër ba mu métti. Mhm. dafay lâché. Ah. c'est pas un jusqu'au-boutiste. Ah, Ablaye Wade loolu mooy force am c'est-à-dire c'est un homme euh, c'est une bête politique mais dafa souple il retombe toujours sur ses mais il a une agilité extraordinaire. Et ça, c'est très. C'est une Voilà. C'est <laughs> voilà. une c'est ça la force d'Abdoulaye Wade. booy xool bàyyi na opposition bi ci benn moment bi mu xamee ne affaire bi métti na lâché na du lest parce que xam na ne bu lâchéwul confrontation bi fa muy jëm du baax. moo tax mu lâché euh, euh, respecter yenn droit yi booy xool aussi Abdoulaye Wade force am mooy euh, processus électoral bi daf ko préserver. te loolu dafa am importance parce que boobu bu ñu bu ñu préserver wul processus électoral bi képp koo xam ne falu nga ëllëg même bu fekkente ne ñi fi nekk ñoom la ñu falaat mais dafay indi ay problème parce que dañu jàpp ne euh, mbir yi jaarul yoon bu ñu jàppee ne mbir yi jaarul yoon Euh, ñi nga xam ne même mën nga faluwaat et puis nga am claire bi nga toog ni mérité woo ko parce que boo bàyyi woon affaire jaar yoon doo ko toog mais loolu xam nga la conscience xam nga am na ñu ko am am ko amul am na ñoo xam ne jaral na leen ko am na ñoo xam ne jaraluñ ko jaralu leen ko mais duñu dugg ci débat boobu dañu wax rek ne bu fekkente ne dañu bugg kóolute diggante ñi nga xam ne ñoo falu la ñu fal ak ñi wala ñoo ne dañ leen fal ak peuple bi mu am kóolute mu am confiance mu am légitimité ndax loolu mooy tax ñu mën a doxal li nga xam ne moom lañ leen sant maanaam jëriñ askan wi. alors rupture bi ñu jëm ci élection présidentielle et c'est les prémices quand même de de crise yoo xam ne boo sàggoon ñu dund ko parce que déjà avec le parrainage am na ñu jàpp soo déggee Boubacar Camara kii candidat moom dafa jàpp ne y a une volonté délibérée d'éliminer déjà à travers le parrainage des candidats vrai ou faux le conseil constitutionnel a du travail et que nous nous surveillons de très très très près parce que. beaucoup d'informations circulent loolu lépp dañ ci dellu si waat waxoon naa ko c'est pas l'objet du débat mm. parce que est en train de recouper certaines informations yoo xam ne ay SMS une inventé il faut recaler telle telle personne wax yooyu yëpp ñu ngi ci et là foofu lay ragal est-ce que société civile narul nekk faire valoir mm. ci affaire u parrainage bi waaw déjà le fait que ñu dugal société civile day wane un déficit de crédibilité bu ñu combler parce que ñàkk kóolute xëy na bi ñu am ci conseil constitutionnel mooy tax ñu jënd ay nit ñoo xam ne yaakaar nañ ne bu ñu leen dugalee dana yokk kóolute gi ñu am ci ñoom wante loolu li koy faj mooy ñu teg mbir yi lépp dal di leer conseil constitutionnel Euh, c'est vrai que ñoom ñoo ñoo war a atte mais léeg-léeg aussi dañ leen di dugal ci jeu boo xam ne ñoom duñ ci mun a génn. Mm-hmm. booy xool booy xool en 1978. Mm -hmm. parti socialiste dafa tegoon benn code boo xam ne. dañ lay wax ne yow mun nga nekk candidat nekk parti socialiste ba pare nekk candidat ba pare di siéger ci bureau de vote bi. candidat buy siégé candidat buy <laughs> loolu code bi daf ko prévoir. Uh-huh. léegi bu ñu ko jébbalee juge bi juge bi lu muy wax munuma ci dara ndax code bi loolu la wax parce que le juge est soumis à l'autorité de la loi. Uh-huh. donc gis nga ni ñu jàppee torpiller le juge à travers la loi donc boo jëlee li ñu naan le positivisme juridique. Euh, étriqué juge bi dafa war a appliquer donc juge bi day mel ni kon un prisonnier de la loi quelque part parce qu'il est tenu d'appliquer la loi donc quelque part aussi am na ay problèmes yoo xam ne du euh, euh, piège bi wala stratégie yi fële lañ koy doxale ci wàllu politique ba pare ñëw andil ko conseil dal di koy piéger en quelque sorte. loolu aussi euh, homme politique yi ñi nga xam ne ñooy ŋànk nguur gi ñoo war a def preuve de bonne volonté maanaam bonne volonté ngir organiser mbir yi mu mu leer ndax bu loolu amul rek euh, bu fekkente ne ay xelu caay-caay dafa nekk ci biir loolu dafay andi ay jafe-jafe. Mm, alors euh, ñu wax ci li nga xam ne moo di l'absence de dialogue. en ce moment on voit nettement que c'est par exemple Karim gars yi nee nañ du bokk ay partisans démb ak ay opposition dans sa majorité Khalifa Sall on sait pas son avenir on attend le 3 avril pour être édifié Karim c'est deux cas quand même qui ont fait bouger le pays et puis qui ont aussi l'image du Sénégal à l'extérieur parce que chaque fois que ñu dem ci institution euh, judiciaire yoo xam ne ñoo nekk de l'extérieur le Sénégal a été sanctionné l'État du Sénégal waaw ah, parce que da ngay gis euh, démocratie sax am na ñenn ñu mel ni ay euh, Robert Daal dañu naan démocratie ñaar la ouverture de la compétition politique ak ouverture de la participation politique hmm. ouverture de la compétition maanaam képp koo xam ne bëgg nga bokk da bokk képp koo xam ne aussi da nga bëgg voté ñu jox la possibilité yi nga voté mais tey dafa mel ni ci ñaar yooyu ouverture de la compétition politique ak ouverture de la participation politique dañ ci am problème ouverture de la participation politique ak carte yi nga xam ne nit ñi jotuñu ko te war ko jot nekk ay citoyen war a wote problème ah, ouverture de la compétition politique am na ñu bëri ñoo xam ne dañu bëgg nekk candidat ñu ah euh, ñuy laam-laamee ne dañ leen euh, gal pour ngir du ñu doon candidat loolu dafay poser problème xoola par exemple problème mu inscription Euh, saisir cour suprême cour suprême ne je suis incompétent or dañu ne en droit tout procès dans un état de droit doit trouver un juge lu tax tout procès doit trouver un juge maanaam problème bu am war na am attekaay boo xam ne war na am sañ-sañu dogal ci mm. ndax dañu ne nul n'a le droit de se faire justice soi-même kenn amul sañ-sañu fajal sa bopp ci réew moo xam ne dafa tënku ci yoon bu ñu waxee loolu ba noppi nga nga jàpp ne dañ la tooñ nga dem fa mbaxane doone euh, ñu ne la ñun suñu yoon kuréel ba war atte àtte ne la ñun suñu yoon nekku ci nu ngeen xam def leen loolu loolu dafay poser problème dans un état de droit. et d'autant plus que dañuy wax ne xamuñu domicile am mais pourtant CREI bu bëggee yónni benn notification da koy yóbbu da <laughs> koy ça fait rire quoi parce que Cour suprême dañ ne da def recours doo wax. non parce que xamuñu domicile am fii à Dakar. non non non. yi bu bëggee yónnee Karim Wade euh, courrier da koy yóbbul courrier bi point E. <laughs> yooyu <laughs> xam yooyu dafa kii dafa dafa doy waar parce que ñi ngi foowee loo xam ne. loo xam ne c'est dangereux. Mm-hmm. justice euh, nit ki bu fekkente ne dañ ko tooñ am na sañ-sañu euh, jël mbir mi jébbal ko kuréelu attekaay ko kuréelu attekaay bi dogal ci ndax loolu bu amul mooy nit ñi débrouillez-vous comme vous mais boo leen ne débrouillez-vous comme vous voulez te yéen yéen a sànq dama ne institution day dogal di yoonal di seral donc kon mm, li nga xam ne mooy cëru institution yi kon institution yi dañu wàcc seen i cër bu ñu wàccee seen i cër ah xëy na loolu mun na jur leneen xoolal li xew Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire dañu jël même élection bi. conseil constitutionnel ak président ba <laughs> joxe deux victoires ci diggante waaw ci diggante ñaari weer <laughs> wala ñetti weer <laughs> nga ne kii moo gañe toog ba mu neex la ci même résultat yi nga ne kii moo keneen moo gañe uh-huh. léegi balaa loolu di am gis nañu uh, situation bi fi mu nekkoon conflit conflit bi mu am donc institution bu joué wul rôle am rek mën na yee na mën na andi violence mën na tax nit ñi am yeneen i euh, pexe yu ñu euh, gérer seen problème parce que tey soo déggee waa PDS ils te disent waaw waaw loolu. le combat politique c'est même mais loolu booy xool mooy erreur yi ñu def ci affaire Karim Wade. Mhm. je pense que la la traque des biens mal acquis ni ñu ko defee à travers la CREI ça été une erreur politique monumentale. kenn mënula wax ne kenn warul xeex guerre. mais xeex ger dañ ko war a teg ci yoon teg ko ci dëgg teg ko ci yemale. buñ ko defee ñëpp dal di ci ànd ndax ger moo daaneel koom-koomu Sénégal bi ñu amee indépendance bu léegi te ger googu di dundal politique tey daaneel suñu koom-koom loolu mooy feebar bi gën a bon bi nekk ci euh, réew mi te ñu war ko xeex kon loolu képp ku jóg di ko xeex ñëpp la ci ñëpp dañu dañ ci war a ànd ak yow wante na xeex bi tegu ci yoon tegu ci dëgg bañ a lalu ci ay politique bañ a lalu ci euh, ku far ci ñun. moom a que a été jugé condamné qui a purgé trois ans de prison avant la grâce présidentielle. loolu la waaw justice sélective day doon justice sélective. Mhm. ak justice boo xam ne dafay joggati ak ak yelleefu doomu aadama yi. Mhm. loolu nag euh, justice dëgg la wante justice euh, balaa muy doon institution bu ñu fàttee ne it valeur la. valeur la justice waaw ah, dafay doon valeur ba pare mm-hmm. léegi valeur boobu nag la ñu a jël dal di koy jaarale ci ay institution ci ay dogal ngir mu doon réalité waaw mm-hmm. ah, loolu lu am solo la alors euh, maa ngi la doon wax léegi les prémices d'ailleurs une violence est d'abord verbale parce que gis naa la premier ministre il a traité les libéraux de sauvages les libéraux qui n'ont pas rallié Macky Sall mm. les a traités de sauvages te yaa ngi gis la une de source A les sauvages Tous ces mangas qui répondent, s'il veut trouver des sauvages, il n'a qu'à aller à la coalition Benno Bokk Yaakaar et à la paire. Mamadou Lamine Massali, seuls les vagabonds se reconnaissent. Babacar Gaye, c'est un roturier qui agit et qui parle en tant que roturier. Nous ne sommes pas surpris. Maître Amadou Sall, Boun Abdallah Dionne est le premier à insulter tout le monde se tait. Qu'il en soit ainsi, lorsque les sauvages s'y mettront, eux aussi, silence, xam nga premier ministre dafa am dayoo bu mu am dayoo bu mu voilà donc kon war na. il a commencé par traiter Abdoulaye Bathily Degré afin de personnaliser. de per waaw de bon waaw loolu vraiment kenn xaaru ko foofu ndax loolu du cëram. Uh-huh. waaw du cëram et puis loolu dafay détourner nit ñi ci débat essentiel yi maanaam au lieu ñu waxtaan ci li nga xam ne mooy koom-koom bi. mooy mooy euh, intérêt Sénégal mooy développement Sénégal ñu nekk di saagante di waxante yu ñaaw loolu vraiment euh, intéressé wul Sénégalais yi am na leneen lu ëpp solo euh, chômage baa ngi fi ndóol baa ngi fi ak yeneen i problème yoo xam ne dafa tar santé bi éducation bi loolu la sénégalais yi di xaar wante du ay saagante surtout bu fekkente ne dafa jóge ci kilifa yi nga xam ne ñoo gën a kawe ci nguur gi. et et ça peut benn réplique parce que soo gisee maître Amadou Sall saaga na. kenn waxu ko dara ñun ni muy traité sauvage bu ñu tontoo na ñëpp noppi. te loolu booy xool euh, violence verbale. mooy indi mooy indi violence physique. booy xool en 88 bi Abdou Diouf demee. Euh, Thiès ne leen euh, traité opposition bi de bandits de grand chemin vous n'êtes pas digne d'être sénégalais. vous êtes wax leen lu nekk jeunesse malsaine jeunesse <laughs> malsaine gis nga loolu après gis nga li mu li mu nourri ci ay violence donc loolu vraiment du loo xam ne dafay. Euh, dañ koy rafetlu parce que démocrate mais encore une fois day wane rek dafa am cafouillage parce que bu fekkonte ne euh, lépp tegoon nañ ko ci yoon ci wàllu droit ci wàllu justice ci wàllu euh, yi nga xam ne mooy règle yi nga xam ne mooy règle compétition politique bi compétition électoral xëy na yii yëpp mënoon na ñàkk mm-hmm. parce que yii yëpp li koy andi mooy Euh, mooy doxalin yi nga xam ne dëppoowul ak yoon wala doxalin yi nga xam ne dafay nuru jaay doole mooy tax xëy na euh, violence verbale bi yëpp di am. te violence verbale mais nekk ci institution kam mm. war nañu am man mën naa d' accord euh, responsable même sax su ma ko dul d' accord mais un responsable lambda de l'APR politique. Mm. politique mu génn yenn mais kenn ku nekk ci pouvoir. lu wax ne borom seen du xeex borom. ci baatu ne waaw war a am benn sérénité benn calme. war nañ mën a am sérénité wante xam nga léeg-léeg euh, nit ki day bu sérénité bi ëppee mën nañ yaakaar ne. Euh, kii il n'est engagé ak yooyu xëy na peut-être. ah dañuy wan seen patron ku nekk ku nekk day wane ne man farlu naa ci maa ngi ci biir terrain politique bi. mais terrain politique bi dëgg dama yaakaar ne du warul nekk ay saagante boo demee France par exemple débat yi day parce que bon débat yi dinañ métti. dinañ mais vraiment doo fa am na niveau boo xam ne duñ fa yegg te pourtant dinay am sottante xalaat dinay am même parfois même euh, du ma wax du ma wax violence mais tension ci propos yi mais fa lay yem mhm. alors euh, nan nga gisee l'intrusion des technocrates dans le jeu politique parce que soo xoolee aussi avec l'ère Macky Sall on a vu beaucoup de technocrates je veux dire de bon des, des administrateurs civils des responsables qu'on n'a jamais connus ci wàllu politique bi ñu dugg dans l'opposition d'ailleurs ñoo innové lu bëree bëri ci discours politique bi parce qu'ils ont posé des questions de bonne gouvernance je veux parler de euh, à, de euh, euh, comment il s'appelle Boubacar Camara je veux parler de de cas comme Hadjibou ñoom ñëpp ils ont posé des problèmes de bonne gouvernance du pays waaw parce que problème mu Sénégal yëpp problème mu bonne gouvernance la booy xool gouvernance économique gouvernance démocratique gouvernance économique qualité des services publics. Mm. ñett yooyu c'est des problèmes structurants c'est des problèmatiques structurantes. Mm-hmm. pour l'avenir du Sénégal gouvernance démocratique mooy wàccoo sàmmonte ak ak ak yelleefu doomu aadama yi ba noppi po sart yi nga xam ne moo tënk po mi ñu waxtaanee ko ba ñëpp ànd ci gouvernance économique mooy xeex ger euh, euh, alalu réew mi des contrats signés réew mi ñu dugal ko fi mu war a dugg ba mu jur koom-koom boo xam ne dafay jëriñ askan wi ak qualité des services publics bañ rek ne tabax euh, ñaari hôpital laa fi fekkoon tabax naa fi yeneen ñaar te parfois duñ ko équiper du am dara donc yooyu ñu bàyyi conception quantitativiste du bilan xam ne ñiy dem hôpital di faju dañu bëgg ñu accueillir leen bu baax dañu bëgg ñu faj leen faj bu mucc ayib dañu bëgg euh, ñi nga xam ne dañu néew doole c'est pas parce que dañu néew doole que waruñu faju waruñu jàng mm. loolu mooy qualité des services publics foofu la ñu war a xeex ci gouvernance démocratique ci gouvernance ci wàllu diggante askan wi ak ñi nga xam ne ñoom la ñu fal mm-hmm. loolu lu am importance la ci Sénégal alors est-ce qu'on peut remporter une élection présidentielle au premier tour au Sénégal waaw léegi pour juste pour continuer ci euh, les technocrates waaw ci les technocrates booy xool euh, technocrates yi bu ñu ñëw noonu en masse ci ci euh, ci ci scène politique bi dafay mel ni day traduire fayitu homme politique yi faillite bi depuis 1960 peut-être des gens se disent que il est temps que ñu expérimenter leneen. Mm-hmm. waaw léegi nag Sénégal dafa nekk à la croisée des chemins parce que dañu gis ne technocrates yi généralement daawuñu am ay score yu euh, performant daawuñu dajale ay xob yu takku ci ay jongante. Mm-hmm. wante léegi euh, xëy na 2019 mën na doon benn tournant ñu gis leneen. parce que 2000 ba léegi déception yi dafa bari ci politiciens yi. Il y a deux qui sont qui doivent régler le problème là Cheikh Hadjibou Souare et Boubacar Camara déjà. Euh, est passé lui ah. puis on dit que moom jàll na donc il y a deux personnes qui doivent régler le problème des parrainages peut-être foofu mooy doon seen obstacle majeur boo xam ne. waaw léegi bu ñu dugalaatee question parrainage bi aussi mu andeeti yeneen problème. mu andeeti yeneen problème alors gagner une élection au premier tour. gagner au premier tour. Euh, man dina ma jaaxal euh, pour plusieurs raisons parce que booy xool coalition benn Bokk Yaakaar 49 virgule 48 pour cent la am ci élection législative yi. Mm-hmm. ak rëkk-rëkk yi ni mu bëree yëpp yëpp yëpp ak ñi nga xam ne jotuñu seen carte électorale donc xam nga déjà kooku muy premier point deuxième point bi mooy aussi euh, ñi nga xam ne dañu mer xam nga j'ai l'impression que président Sall lu ci gën a bëri. moom mooy construire ay adversaire oui euh, Karim Wade bu fekkoonte ne il n'avait pas été victime de ces injustices kon xëy na tey du taxaw sax et puis il y a des tensions yi muy créé yoo xam ne manifestement pour man soxla ko mënoon na ñàkk ñu bëri ñu bëri loolu la ñu mere en euh, frustration bi tension bi nekk Khalifa Sall mënoon na ñàkk mënoon na ñàkk Khalifa Sall gagné Dakar mënoon euh, ça n'aurait mu respecté woon engagement am def cinq ans je pense qu'il aurait eu plus de chance. non il va passer loolu ça sera réélu au premier tour. s'il avait respecté son cinq ans. dénk nag léegi boo cumulé yooyu yëpp ak pauvreté bi développé wu ak euh, situation yi ci loolu dafay tax dina jafe ngir mu am candidat bu jàll premier tour. premier ah, une forte politisation de l'administration. forte politisation de yegg foo xam ne dafa jéggi dayoo te à nouveau insoupçonné à nouveau insoupçonné et grave. grave parce que dañu dem ba nga xam ne ñiy yore kopparu réew mi mooy mi euh, waa ministère de euh, cadre yi gën a mag ministère de l'économie et des finances ñu jël leen ñoom ñëpp sóob leen ci politique bi. xam nga hmm. loolu déjà euh, pour koo xam ne da ne da ngay xeex guerre da nga bëgg gouvernance sobre et vertueuse loolu dafay tey xel hmm, hmm. parce que boo gisee ay fonctionnaire boo xam ne fonctionnaire nga ngay génn lenn ci xaalis wala am yenn am-am yi te ñëpp xam nañ salaire fonctionnaire yi. loolu dafay euh, dafay euh, jaxase xelu sénégalais yi. waaw mm-hmm. ah, te loolu booy xool Sénégal dafa mel ni génnoon nañ ci. Euh, situation boobu la mhm. plupart du temps ñi nga xam ne ñooy nekk euh, ministre de l'économie et des finances wala ñi nga xam ne ñooy gérer les portefeuilles clés ci ministère boobu mhm. dañ leen di génne ci politique bi parce que bañ leen exposer bañ leen teg ay pression politique yoo xam ne mën na tax mu yàq seen liggéey euh, mën na tax mu mais ça ça a été encouragé par le président qui dit que DG bu gañewul ma dàq waaw loolu la moo tax ma ne fi ñu yóbbu affaire bi obsession second mandat bi ñu doon wax dama bëgg a à tout prix loolu vraiment Euh, mooy tax euh, yoon bi nga xam ne moom la président waxoon ne falay jaar yoon boobu pour nga jaar ci mënuloo ne dama bëgg a gagner à tout prix. alors je te donne l'occasion de souhaiter bonne heureuse année aux Sénégalais pour le dernier message. waaw euh, de vraiment souhaiter une bonne heureuse année à tous nos compatriotes sénégalais. Mhm. et de souhaiter également une élection dans la paix, dans la sérénité et que tous les acteurs euh, dans la vérité. et dans le respect des droits des uns et des autres, mm-hmm. puissions-nous s'acheminer et euh, dépasser ce moment euh, crucial de l'évolution politique du pays. Alors, c'est très important. Merci beaucoup euh, Maurice Soudjek-John qui nous avait le plaisir de venir participer aujourd'hui dans notre émission Samedi Mac. juste pour vous dire que nous aussi, suivre, parce qu'on a beaucoup d'informations sur euh, ce qui se passe au niveau du conseil constitutionnel et aussi ce qui se trame tractation yi ñuy def noonu yëpp euh, on a la possibilité de de vous révéler beaucoup de choses euh, qui se trament sur ça donc euh, alors am na benn bout de phrase boo xam ne daf ma tiital également pour ceux qui sont déjà passés pour le parrainage il faut être très très très très vigilant parce que dinaa leen liral léegi bout de phrase boobu qui m'a fait tiquer précision du conseil l'obtention du minimum requis ne présage pas de la recevabilité mmh. cela veut dire que même ñu jàll ci parrainage bi seen candidature leeragul mmh. l'obtention du minimum requis ne présage pas de la recevabilité le conseil mais mais loolu lu lu xel mën a. nangu la parce que fa am dépôt candidature. am na dépôt candidature am na il faut être exclusivement de nationalité sénégalaise. il faut jouir de ses droits civils et politiques et tout à fait donc euh, on peut on peut mais on suit. on et on surveille. <laughs> parce que ce que nous cherchons ñun li may wax rek ñun lu ñu bëgg moo di ku war a bokk remplir conditions yi. nga bokk bokk. waaye ku remplir condition yi tamit. Mhm. ñu war bëgg laa indil ay galgal bu ñu ko mhm. xamee dañ koy dénoncer. Mhm. c'est pas normal ku war a bokk ci ay élection dañ lay bàyyi ñu bokk moom laa doon wax ne wadd bu fi xëyoon génn benn loi ne ku mës a doon premier ministre pendant un an sama régime doo doon candidat élection présidentielle yi Macky Sall du bokk. il est possible parce que amoon na majorité bi. Ah à l'Assemblée nationale c'était possible il est possible donc ñu bàyyi la nga remplir condition yi waa conseil constitutionnel dana leen wooye juróom-ñaari sage sage nag dafa am lu ñuy xaar si ñoom sage dañuy xaar si ñoom dal sérénité acte dëgg jiital réew mi ci lépp c'est important donc euh, on vous surveille de très très très près on surveille aussi partout les informations qui circulent euh, donc on va faire une petite pause euh, pour venir sur la seconde partie de votre émission samedi matin